alhamdulilah ñëw leen seen revue de presse lamb altinay tay jii la ci gën a fës ñu ñëw ci résultat yi tukkee ci week bi tàmbali koog ca stade bu Tëngéej ni ki samedi ji kii ji Sadji moom moo daan ki nga xam te ni moo di amul frein numéro 2 ca grand combat ba buñ xëyee ci dimanche bi ñëw ci arène nationale ak Assane Ndiaye Baol production Petit Niang moo daan BMW jël bu rëy bu amul benn werante ci huit minutes neuf secondes suñu laa mu ngay ñëw ci combat bi ñu doon xaar ak tafatin Baye Ndiaye ma ko tëgg borom alburaax ma nga xam le ne combat bi taxawaloon ko yomboon na loolu ndax waxoon naa bu ñu raisonnable ma taxawal ko ci lu gaaw ndax nag ñi nga xam si ñooy agent cuun ñi nga xam ne ñoo yor tafatin ñu raisonnable la ñu professionnel lañ ci seen liggéey daanaka boo xoolee waxaale ba yàggul ndax tafatin ci la mujjee jugee dama ko caa yokkalaat rek ñu daal di su suñu la mu ñu xamal ne combat boobee taxaw ga mu taxaw arrangé wul ki nga xam si ni moo di Siteu ndax Siteu nga taxawoon di xaar ngir mën a jàkkaarloo ki nga xam ni moo di Balla Gaye numéro 2 te fi mu toll ni Balla ko ana fan la war a jëm suñu lam mu ñu xamal kii nga xam si ni moo di Tidiane Faye bu Lansar ginnaaw bi mu dugalee recours ci digganteem ak Nandi Fall gis ne moom combat boobee moo ci waroon a a am dam suñu làmb mu ñu xamal ne CNG gën naa dëggal victoire Nandi Fall ci kaw Tidiane Faye ndax nee na ko Tidiane Faye Nandi moo la daan kon recours ba jariñul dara ginnaaw loolu suñu làmb mu nga ñëw ci diggante Franc ak Quench combat bi nga ni koy xaar te boobaak léegi mënut a moo ciy solution ndax Franc kii di la bëgg te Quench pare na pour bëre ak moom suñu làmb mu ñu xamal ne ñaar ñi war a bëri dëgg mu di Balla Gaye ak Tapha Tine fii da ngay Balla Gaye ne ko foo ma jaaroon laay jaar ginnaaw loolee ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje ni ki su mbokki amateur lamb yi arène nationale la ñu jëm le 25 janvier ak jeunesse production ci première édition drapeau Serigne Mamor borom sajaratu Touba le grand marabout traditionnel grand combat bi di dox ci ñaari xale yu mën a bëre Ardo Junior bu Grand Yoff mbooloo ak Sa bu ndaw bu Géejawaay mbooloo loolu di nekk première édition drapeau Serigne Mamor borom sajaratu Touba borom jaara yu baax yi Serigne Mamor mi nga xam ne ku mu ñaanal say mbir baax Serigne Mamor borom def léegi gis léegi dindi liggéey nag wala ubbi wërsëg moo ci gaaw a mbokk yi aada rëfës bu fas bennoo dana fa laale ak aada mbër bu tefes gi booy saar bu golf gaynde dana fa laale ak sita bu goomeen bu caaxoy mbooloo poti liixu dóor dóoraat dana fa laale ak bébé sita bu écrit seex mbaba trompe bu écrit jàmbaar di fa jàmbaarloog g bu écrit lamsaar caatu castor bu père jaw di fa jàkkaarlook sox bu grand médine mas 36 bu ressortissant Fatick di fa jàkkaarloog labba bu grand yoff caatu kees Rouge Bordeaux bu Mansour Mbaye fils de Boy Niang Pikine mbooloo dana fa jàmmarloog Abou Ndiassé bu Dóor Dóoraat Ahmed Dof bu Ndiane di fa jàmmarloog Boy Njaxas gi bu Bosco Sow ah Jeunesse Production ma ne sponsor ñoo leen gunge ci bis bu mag boobu ñu ne ma King Boisson buuru boisson yi maire Ndioufa design Sajaratu Touba bu Serigne Mamor ak Taïf Karo bu Jibi Bamba nekk en face hôpital Sétéwo nga xam ne lépp loo soxla ci wàllu karo ñoo ci numéro un Jeunesse Production di ci rendre yëpp di ko ci fàttaliku mbokk yi bis baa ngi noonu di bisu jeunesse production le vingt cinq janvier fii ci arène nationale jeunesse production di structure ba nga xam ne ay xale yu am jom ñoo ko taxawal fas yéenee marqué seen empreinte ci lamb ji mbokk yi grand combat baa ngi noonu di dox ci diggante Ardo Junior bu Grand Yoff mbooloo ak Sa bu bu waay di combat jinne ndax ñaari xale yi koy bëre ay ndaanaani lamb lañu kon le vingt cinq janvier fii ci arène nationale ak jeunesse production ñu yëngal arène nationale ba mu yëngu boole waay